am tey jii euh, par rapport ak euh, point Covid euh, du jour comme ni ñu koy seetloo rek Thiat fu mu toll nii mën nañoo wax ne maladie bi mu ngi si courbe descendante am comme nu ko professeur di waxee rek jógee nañ si pic fu mu toll nii ñu ngi ci plateau ban jàngat nga am par rapport évolution maladie bi ak ascendance bi nga xam ne seetlu nañ ko ci. waaw d'abord li ma si mën a wax mooy di continuer di féliciter vraiment les médecins sénégalais ci seen bravoure seen njàmbaarte. seen professionnalisme tey jii nii bu ñu amalee ñenn njukkal ñoom kese la et je le demande ouvertement que Sénégal crée une date pour commémorer wala pour en tout cas jëmmal suñu médecins yi at mu jot ñu leen di ñu leen di ñu leen di jaajëfal parce que def nañu liggéey bu am solo ci lu ñu mel avec les maigres moyens dont ils dispose ak euh, suñu plateau médical bi ni mu amee ay problème amuñu dara. dem nañ benn moment wax na sax dañ doon baxal ay gants di baxal ay masque pour mun ko solaat le lendemain donc ñooñu buñ mënee accomplir liggéey bu mel nii mënoo lu dul gërëm leen sant leen bu rek jaajafal leen mais on continue à appeler les Sénégalais à rester responsables ñu xam ne que c'est pas parce que pic nekk waxatuñ pic plateau la ñuy wax rek léegi feebar bi dem na noo mi ngi fi nañu gën a moytu nañu gën a aar suñu bopp nañu gën a sol suñu masque gën a respecter yenn yi pour ñu mun a incha allah tàggoog feebar bi lu gën a gaaw. d' accord euh, Thiat démb yi la doon am benn point de presse seen euh, QG euh, bu féetoo foofule au niveau des Parcelles Assainies mm-hmm. yi ngi ni critiquer Macky Sall par rapport ak gestion bi nga xam ne tëral na ko si Covid 19 yéen vous parlez de tatonement ban si si si lan ngeen su sukkandiku pour wax ne président Macky Sall tâtonnement la def si xeex coronavirus bi. au-delà de tâtonnement sax je dirais même c'est un échec total parce que parce que au début bi bi bi Macky Sall woowee sénégalais yëpp ñu ñëw wuy si ko les gens avaient foi pour une fois que réew mi dina am benn cohésion sociale am benn entente dina am lu ñuy woowee un consensus autour du question bu aussi importante que le Covid nga xam ne lëmbenn àdduna bi yëpp malheureusement ce qu'on a constaté mooy que ne Macky a fait encore de la politique encore du cinéma encore du théâtre pour appeler les Sénégalais les acteurs en tout cas de la société civile ak de la politique ñu ñëw rencontrer ko juste pour que mu valider ce qu'il a envie de faire lui et dire que écoutez tous les Sénégalais seront comptables de ce que je faire parce que ñëpp laa woo woo naa ñëpp na cinéma la woon parce que en réalité woo nit ñi te dégluwoo leen wala dégg leen te dégluwoo leen amul benn sens il a appelé les gens les gens sont allés parce que yàgg na fi woote dialogue national kenn demul kenn musu ko ñun fexe ne façon bu nekk musuñ fa dem bi Covid bi ñëwee ñun suñu responsabilité bopp en tant que mouvement citoyen on a décidé de prendre en charge suñu bopp maanaam ne écoutez dinañ fexe ba nga xam ne képp koo xam ne xam nañ la wala mun nañu la sensibiliser ba yow Covid bi du jaar ci yow yaanaama dina ci xar tànk tubéyam cent un franc de l'État cent un franc de l'État mais nañ ay masque mais nañ ay vivre ci li ñu am ñun kas néew def nañ ay single def nañ ay capsule sensibiliser nañ def nañ lu ñu mën te yeneen sénégalais def nañ ko sëriñ si sax joxe nañu xaalis Touba joxe na xaalis sénégalais lambda yi joxe nañu xaalis mais malheureusement qu'est-ce qui s'est passé on a vu que Macky def na ko prétexte dem leb 1000 milliards ci doowu sénégalais yi ñëw enrichir son beau-frère son beau-frère qui à son tour enrichir ay xaritam et que Sénégal resté ci benn même même statu quo bi mu rey économie du Sénégal. ni ñu gérer Covid bi ils ont assassiné ils ont même liquidé l'économie sénégalaise sachant que nous avons une économie à 70 pour cent basée wu ci informel aujourd'hui ce secteur là coût bi mu jël gëwuma ne dina ci gaaw a jogaat parce que tey si tu dans un pays boo xamante ne nii à majorité ñëpp informel la nekk ci secteur boobu noonu ñoom nga gën a abandonné il a protégé les forts Macky a protégé le patronat les forts les forts ont eu leur grosse part les plus faibles ñi nekk ci fichier moom bi muy jox bourse sociale pour préparer ses campagnes électorales pour préparer ses élections ñooñu fayal na leen facture jox na leen ndimbal mais les sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci digg bi la masse ñi nga xam ne ñoo ñu ëpp nga xam ne ndoolu ñu lool lool lool waaye amuñu it tu vois ñooñu da leen assassiné muy la troisième tranche sociale bi nga xamante ne nii Macky tey divisé na notre société en trois classes sociales c'est un échec au-delà de ce de ce cet aspect-là regarde ce ce qu'il est en de faire yow def nga état d'urgence def couvre-feu ñu voté la loi à l'Assemblée nationale jox la lépp luy leng ci réew mi au contraire nga waroon a góorgóorlu ne ah sénégalais yi pour une fois à l'unanimité d'accord nañ ak man ci li ma bëgg a def jox nañ ma lépp luy matuwaay pour ma mun ko def xaaral ma nag ma góor góorgóorlu liggéey non non mu jël ko di signé ay décret yu kenn xamul fenn di neexal ay ancien présidente de xaw ma je ne sais pas au conseil collectivité xaw ma lan di dagg suñu suuf si suñu littoral bi di ko maye ak di ko jaay di ko pasar pasare mm-hmm. donc dans le dos des Sénégalais ñuy nekk di traficoté. d'accord. Euh, loolu yëpp dinañ si ñëw mais Thiat euh, sa biir wax euh, wala démb sa seen conférence de presse bi ngeen amoon yi ngi ni souligner paradoxe yu am si décision yi nga xam ne président de la république jël na ko mais est-ce que aussi paradoxe yi mun ko munin ko rek tënk fenn par rapport ak tamit précarité bi nga xam ne coronavirus bi tegoon na ko si ndodd Sénégal yi ak tamit fu mu toll nii classe précaire bi nu mu doon jéem a monter est-ce que président de la république assouplirul rek mesures yi rek ngir mën a ngir Sénégal sénégalais tinkoy ko mun a dem liggéeyi. mais non mais non une mesure c'est une mesure soo koy jël pour le bien et l'intérêt du peuple da koy jël nga ferme ci loolu mooy tâtonnement bi en réalité c'est-à-dire que le président de la république xamul ban décision lay jël. même sax fekkee dafa war a rey économie réew mi. non mun justement rey économie réew mi mooy dem leb 1000 milliards injecté ko ci. ci sa sa ci sa ci sa beau frère ak ci say xarit fa beau frère loolu mooy rey économie bi. su euh, xaalis bi nga ne dafa jël 1000 milliards injecté ko ci ay xaritam. wala ay oui mais parce que le marché ceeb bi gis ngeen ko marché dund bi ñen ñoo ko yor kan moo yor marché dund bi ak ñen ñoo ci bénéficié wu. est-ce que les populations jot nañ ceeb ba ñu wax les chiffres avancés ci kilo de ceeb bi tonnage bi ñu waxoon du loolu la population yi jot musuma dox ba gis population bu jot. di wane wu di di théâtre à la télé ñu photo leen ngeen taxaw ci ay kanamu ay saaku ceeb pour dem def juste toujours les mêmes pratiques la ñu gis. mais ci marché ceeb boobule euh, le ministre Mansour Faye moom indi na si tey ay éclairage par rapport ak tamit euh, acheminement bi distribution yi. je suis désolé Mansour Faye c'est pas notre interlocuteur. Macky Sall il a mis en place un comité jël la général Ndiaye teg ko fa ñun comité bi moo waroon nekk suñu interlocuteur ñun. nekk en charge oui, de, de cette distribution c'est le comité qui devrait se charger de rendre compte les Sénégalais du Mansour Faye ñun dégluwuñu Mansour Faye Mansour Faye sa parole n'a pas de crédibilité Pourquoi auprès des Sénégalais boobu def du ma dugg ci débat boobu c'est pas personnel mais amul crédibilité auprès des Sénégalais s'il si a s'il a mis un comité en place c'est pour que ce comité là mën a saytu liggéey bi Mansour fay di def ñun xaaruñu Mansour Faye di ñu wax c'est un c'est juste un bu ñu fa teg maintenant ñiy def les opérations sur le terrain ak ña leen di observer ñooñu la ñuy xaar ñu rendre ñu compte aujourd'hui c'est pas Macky Sall qui va nous donner le nombre de cas qu'il y a au jour au jour le jour c'est les experts de la santé qui nous donnent le nombre de cas c'est dans ce même sillage que nous exigeons que ce comité qui a été mis en place ñuy encore utiliser le contribuable sénégalais ñooñu ñoo ñu war a rendre compte ce qui c'est en amont qu'ils ont créé ce comité-là donc amul sens si c'est un comité juste pour dem foofu pour valider ce que li ñoom Macky Sall bëgg def kon comité boobu amul lu ñuy njëriñ mais incohérence yi ak tatonement bi danga koy gën a gisaat ci njàng mi. da nga koy gis si ñëw voilà euh, si ñëw Thiat ñu des euh, ba tey euh, si manque de transparence bi ngi loon souligner démb au cours de votre conférence de presse par mm. par rapport ak distribution aide alimentaire bi parce que ñu ëpp si yéen wala observateurs yu bëri dañoo jàpp ne fu mu toll nii mm. dafa rek am manque de transparence par rapport ak ceeb beeg mm. diwlin beeg yooyu noonu tey ñu gis ne le ministre Mansour Faye génn na def na benn interview di xam le ne fu mu toll nii sur cinq sur cinq cent cinquante trois communes nga xam ne moom la Sénégal compté cent 96 euh, si ñoom jot neen euh, suffisamment euh, kit alimentaire yi nga xam ne ñoo leen war a jot 224 si ñoom ñu ngi en cours donc mun na ñoo wax ne 143 communes rek fu mu toll nii si Sénégal ñoo jotut gut donc loolu mun na leen nangul ne fu mu toll ni transparence bi mu ngi commencé di feeñ. oui mais moom laa la wax. parce que on parle des des d et des tonnes de aussi quand même. foofu laa lay waxee dama ne la pourquoi attendre d'abord que les Sénégalais tirent la sonnette d'alarme pour ñuy wax. Hmm. mooy premier mooy premier point. deuxième point c'est des chiffres avancés par qui sa parole elle vaut quoi c'est ça le problème le nœud du problème mooy kan mooy suñu interlocuteur aujourd'hui ñun la peuple sénégalais pourquoi créer un comité bu fekkente ne comité bi son rôle keneen moo koy def à leur place. donc euh, sur le terrain chiffres yooyu. population bi incohérence gisuñ ko man mënu ma ko tàtte tey jii nii boo doon def des statistiques dugg dans les villages les plus reculés certainement di nga gis certains endroits yu am ceeb oui mais ñuy recevoir les bourses sociales. ils ont un fichier qu'ils respectent ils ont benn database bi ñu respecté seen database boobu mooy seen électorat ba leen volal voteloon ñooñu moom leer na mën a jot nañ. mais loolu est-ce que aussi doy ay affirmation gratuite c'est un fait le acheminement wu ceeb bi fan la njëkk a dem les premiers camions sortis fan la njëkk a jëm le constat est là yéen presse bi nga nekk xam ngeen bu baax li ñuy wax ce qu'on veut dire aux Sénégalais aujourd'hui mooy que que l'on soit conscient que xaaruñu xaar bu ñu toogee di xaar cet état du ah fi ñu jëm dara du fa neex parce que déjà mënuñoo comprendre bi ñu tollee ci treize cas soixante douze cas nga tëj sénégalais yi def couvre-feu dem sax ba France 24 TV5 nga ne léegi finalement dootuma sax def couvre-feu bi à partir de vingt heures dix huit heures laa koy wàcce parce que l'heure est grave ñu xëy xëy rek cas yi toll ci ay cinq mille cinquante cinq morts nga ne yow non parce que y a eu des pressions sociales damay alléger les trucs kañ la Macky daan seede ci pression sociale parrainage bi. des Sénégalais on reçu des balles ay ay lacrymogènes un étudiant a été tué des bavures policières amoon na fi ñun ñi tëj nañ ñu fi ku nekk fu fenn façon bu nekk Sénégalais yi manifesté nañ crié nañ sur tous les toits là les les partis de l'opposition ont crié sur tous les toits pour que mu reculer dégluwu leen. may ma ma ñëw may ma ma ñëw may ma uh-huh. sur sur des yeneen ak yeneen comme des dossiers politiques comme ay Khalifa Sall comme ay keneen ak keneen. il n'a jamais reculé Macky n'a jamais reculé sur son référendum dafa xëy rek jébbal ñu ko nañu damay def référendum par force sénégalais yi ne ko déedéet mu continuer forcé dem il n'a jamais reculé il n'a jamais cédé à la pression sociale pourquoi aujourd'hui il prétexte que c'est un dafa dafa céder à la pression sociale mais il me ça fait rigoler quoi donc si n'a pas prêté à la pression sociale comme ni nga ko waxee ak observateur yu bëri donc Macky Sall lan la def xamul fu mu jëm droit dans le mur xamul fu mu jëm nii lay def. cox donc da ngeen jàpp rek c'était juste une occasion pour rek mën a maquiller euh, échec bi. bah oui xamul fu mu jëm après il faut desserrer un petit peu le nœud pour que frustration yi gën a wàññeeku parce que li nga ni nit mënul contrôler mooy les foyers de tension partout dans le pays loolu moom mooy loolu moom mooy danger chez dans les chez chez un politique Macky tant qu'il est capable de contrôler ou de savoir ou de faire. Euh, benn avoir euh, benn bëtu sniper autour de ce qui se de lui xam ne que ok a marre ils sont ils vont faire ça diw ils vont faire il s'en fout loolu géré wu ko li mu ragal li mu li mu xamul mooy li mu mënul contrôler <laughs> des gens qui sont à à à Cap Skirring qui manifestent des femmes parce qu'elles ont besoin d'eau ba police dóor ci kenn ci bal des enfants des jeunes de 18 19 ans qui manifestent à Kaolack à Touba ak Diourbel les chauffeurs ñi nga xam ne c'est un secteur hyper important ñu mun a paralyser am réew lëmb jóg di manifester loolu il peut pas le c'est l'État du Sénégal bi ñu am aujourd'hui n'a pas la carrure n'a pas le charisme d'un État capable de gérer ces tensions-là et c'est ça qui a, qui a def le, le, le, le, mot de le changement. Il s'est rendu compte qu'il fallait desserrer le nœud. Pas parce qu'il y une pression sociale, mais parce qu'il ne sait pas où aller. Il ne Si vous Macron, si vous Macron, Macron, Macron, Macron, Macron, Macron, donc Macron ne sait plus où aller. Lolotar, def, def, des mesures qui ne servent absolument à rien. Un couvre-feu de 23h à 5h du matin. À quoi y' a aucune pertinence tëjal baar seen jàmm mais un couvre-feu de 23 heures à 5 du matin à quoi ça rime en réalité les droits et des Sénégalais loolu moom mooy l'astuce c'est pendant depuis le mois de février il se sent comme lui il est un dictateur looloo ko ci neex il a la posture et la carrure d'un dictateur depuis le mois de janvier loolu donc moo ko ci intéressé parce que loolu la am on a une dictature maintenant qui se traduit par cet état d'urgence bi nga xamante ne am fu ne suñ morning bi jël nañ ko leb ko sur le judo wu sénégalais yi encore ñëwaat encore séddalewaat ko seen biir defaat de nouveaux riches beaucoup d'incohérence d'accord euh, Thiat ñu des ba tey euh, sur la date du nga xam